bismillahirrahmanirrahim laqad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 soxna Ndeye Yacine Fall di doom ji Serigne bi Fall ak soxna Bintu Ndiaye dëkk Bambay juddu la 4 10 mois 2013 macha allah mu jàngal ñu ñaari barab yooyu ci suuratul ma suuratul Ali Imran ak suuratul Dariyat ci njàng mu am solo moom yàlla yàlla def mag def la magum lislaam barke alquranul karim su ko defee ñu bàyyi la nga dellu sa place euh, ñu woo maam Jaara Mayga suñu fallu kan moo ko jox shahadaam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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة كأنه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من زورهم من زورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقولوا يوم القيامة يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون حسبك بسم, بسم الله الرحمن الرحيم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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم aywa ji ma nga ñoo bàyyi ñu noos tuuti macha allah mën nga ñoo bëlawu nag xam nga gars yi doon nañ tàmbali di nelaw tuuti waaye maam jaara yar nga bas bi tabaraka rahman takbir maam jaara njàng mi neex na waaye tàccu leen ko waay ah masha allah tabaraka Sidi Mokhtar Ndiaye Sidi Mokhtar Ndiaye dañoo jege si di doom ji sëriñ Modou Bissa Ndiaye ak soxna Bali Ndiaye dëkk Touba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 وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانتا آمنة مطمئنة يأتيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان فكفرت بأنعم الله بأنعم الله فأذاقها الله لباس لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير di bete beteem njaay yal na yàlla barkeel sàmm la aar la barkeel xon ndeysaan xam naa ne moom ci njaay gi ma gi nga bokk moom wér na ma ne mokkal alxuraan moom dafa dafa loo yéeme nga xam naa ne ku la dàq moom nga ñibbi ci sëñ xadim sëñ Moodu moom xam naa ne moom dinaa koy dégg lu bari su defee kon ña ngi lay ndokkeel bu baax di say waajur ñëw nga ak pësteef wax dëgg yàlla sëñ galas nee na waaye bi moom na pësteef di ma ne ko njaay la sant ndeysaan yàlla yàlla sàmm la aar la barke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 بسم الله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 كأنهم ما خلق السماوات macha allah takbir macha allah jëf njàng mi pasteefu na lool ndeysaan jooy na ba sol euh, alquran mooy miracle xale bi day jàng ci barab yoo xam ne barab yu jooylu la waaye buy jooy sax moom xamul li mu waaye faaw mu jooy di doom ci Mouhamad Mbacké Thiam nday taar jum dëkk dakaar judd la 8 décembre 2009 mën ngaa nuyoo nuyool asalaamaaleykum wa rahmatullah laaj naa ko nag ban caam nga bokk caam baabel demba caam wala caam maysa mu ne ma caam baabel wax na ko nee na ma demba laa ma ne ko caam baabel demba caam ndeysaan bismillah jërëjëf sëriñ Omar euh, soxna Aminatu Caam ibda'i min qawlihi taala ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani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 رقيب لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بالنفس wala

كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ hasbuk sadaqallahul azim masha allah takbir takbir waaye nag am na lu ma la aaya woon te def nga ko waxoon naa la ne boo ne aoudu billahi min alsheytani irrajim bopp saar wi waxal bismillahi irrahmani irrahim waxoon naa la ko waaye dangaa ñëw rek la axusim bi yawmal qiyaama macha allah yàlla na yàlla barkeel def la mag def la magum lislaam barke alxuraan karim tabaaraka rahmaan sama xol sedd na yaa mi tarib sa sedd na aminata sa xol sedd na macha allah tabaaraka rahmaan soxna may ma la doon jàngal nee na xolam sedd na ndax lim la def la woon def nga ko sëñ mortala nee xolam sedd na tabaaraka rahmaan su ngeen noppee ngeen jaar fii ñëw baatere incha allah soxna Koddu mën ngaa nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. si fàllu ay woo jox ko ab laaj bismillah. jërëjëf Sëriñ Omar. soxna Koddu ibda'i min qawlihi taala ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله أعوذ بالله حسبك ولقد مننا على موسى وهارون بسم الله allah takbir takbir soxna koddu gay di doom sëriñ adama gay ak soxna gay dëkk Kébémer njàng bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aleykum salaam wa le directeur Mokhtar Ndiaye et l'ensemble du personnel des instituts Cheikh Chaabi Mbàkke Xaadimu Rasuul et Daarul Muslimat Soxna Muslimatu Mbàkke bintu Xaadimu Rasuul c'est avec un réel plaisir que de m'adresser à vous ce jour pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cet événement important dédié à la mémorisation du Saint-Coran Cette journée constitue pour nous l'aboutissement d'un remarquable travail entrepris depuis que vous nous aviez confié vos enfants avec la rigueur et l'appui constant des Serigne Daara qui ne ménagent aucun effort pour l'apprentissage parfait du Saint-Coran. C'est aussi l'occasion pour nous, administration de l'école, de remercier infiniment nos veillants parents d'élèves pour l'entière confiance placée en nous dans l'espoir de voir leurs enfants être des exemples dans notre société. Cette journée symbolise des moments de dur labeur et sacrifice afin de perpétuer l'enseignement du Saint-Coran et des préceptes de l'islam. Enfin, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous, de nous avoir permis de transmettre à nos enfants le meilleur des cadeaux, à savoir la mémorisation du Saint-Coran. Nous vous remercions de votre présence. merci beaucoup tàccu leen ko waay merci macha allah leen jeexale mooy sant suñu borom subhanahu wa taala waaye julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye yar bi nga xam ne ñu leen koy yar ci daara ji ak itam ñoom ñu war a nekk ay nit ñoo xam ne ay nit ñu exemplaire la ñu doon fu ñu mën a dem ñu man leen a roy loolu dafa am solo waaye li solo ci wax ji nag mooy euh, bis bi nga xam ne daara ji ña ngi koy amal bis la bu boo xam ne si tey daara ñëpp war nañ cee jàpp paana def yëpp war nañ cee jàpp war nañ koo fonk xam ne lii fet la boo xam ne fet bu rëy ci daara ji. sëñ daara damay wax ne waa daara. bis bi gën a rëy si ñoom mooy bisu bis bi bis yi ñu taxawal conférence. moo ci gën a rëy moo ci gën a rëy. Mhm. daanaka moom rek moom lañuy woote waaye léeg-léeg nga gis benn parent am dañu ci daara ji ay doom def fukki at ñaar fukki at duñ ko mas a woo ci ngénte wala ceet wala yeneen ñu mel. buñ ko wooyee rek ci bis bu mel ni lañ ko wooyee. moo tax bis yi parents yi dañ cee war di taxaw bu baax a baax. fête nationale la ci daara di ko jëmmal jox ko cër bu baax. Mhm. ndax bis bi rek mooy bisu daara ci daara yi. dëgg la kon macha allahu taala nañ ci bàyyi xel baax waaye bala jàll ñu jàlli e, ñaari kàddu rek ci xale bi nga xam ne moom moo doon moo doon def discours bi di wax ne moom mi ngi ci daara ji ba léegi kon ne di jàng xam-xam sëñ Mortaal nee na jàmbaar la lool ci wàllu xam-xam bi waaye jàmbaar leen ci subaat bi ndax ba ñu mokkalee ba léegi ci ñetti àll la toll ak léegi ñi ngi jàng xam-xam ñi ngi jàng français ndax bu njëkk danga nga daa gis xale yi bu jàngee ba nopp bu ñibbee seen kër bu toogee deux mois boo ko taree loo foo ko laaj dem Euh, ñu mel ni Serigne Khadim Ndiaye al imam teg programme boo xam ne xale bi ginnaaw bu mokkal dama des ci daara ji def fi ñetti at pour am entrée en te xam nga ñetti at yi ñuy def noonu boo demee ci école bi six ans lañ koy def damay wax na six ans bëriwul ci parents yi ci école bi mais dafa bëri ci ñoom ci daara ji. asalaamaaleykum wa rahmatullah. wallaahi wa barakaatu. sëñ Ibrahim.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 من المؤمنين وما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 قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما wajaa hasbuk sadaqallahul azim wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur masha Allah tey alquran dafa ñëw léegi ne wa mazzaqnahum kulla mumazzaq mënul fexe ba jàll mu tëb aaya bi waaye gis na biñ ñëwaat bi ñu ko laajee da ko wax alxuraan moo yéeme kenn mënu koo mokkal kenn loo ko mokkal mokkal rek bis dana ñëw mu def la mbir wallahi yal na yàlla sàmm def la mag def la magum lislaam barke alxuraan Ibrahima Xulle di doom ji bàyyi sëriñ Xulle ak son astu Fall dëkk Touba mën ngaa wàcc ñu woo alxaaji Fall mu ñëw jege si bu wàccee ñu dem julli insha allah suñu Fall koo jox shahaadam ñu woo sëñ Abou Ndiaye Ndar mu jox ko shahaadam sëñ Abou Ndiaye bismillah sëñ Abou Ndiaye Ndar mën ngaa nuyoo asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Alaaji ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير حسبك فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستعبوا العمي على الهدى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حسبك sadaqallahu alazim macha allah jërëjëf sëriñ alxaaji Fall di doom ji sëriñ Mortala Fall ak soxna Amina daa sangul daan soxoo dëkk Dakar rahmatullahi wa barakaatu macha allah bismillah maam Astou Fall ibdai min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

حاسبتهم لؤلؤا منثورا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم وخلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا maam Astu Fall tabaaraka rahmaan laa ilaha illa allah ay waay maam Astu Fall jàng na de suñu fallu mu neex maam Astu jàng na mu neex suñu fallu jàng neex la jàng maanaam képp koo xam ne yëng ne maam Astu Fall jàng na yëg di sa loxo ca kaw ma xool si mortal dama ne ku sa xool sedd ñawal jox ma addi alxuraan kon alxuraan suñu fallu andi ku xolam sedd laa wax ku sa sedd toog. ku xolam rek na ñëw. sëñ Xaadim xolam sedd na. waaw sëñ Xaadim nee na xolam sedd ku sa xol sedd bu kenn yónni kenn ku sa xol sedd ñëwal. bu kenn ñëw leen ku sa xol sedd ñëw laajuma dara sa suma kenn lu waay joxe baax na. sëñ Fallou alma gi tegal foofu waaw. dama ne ku xolam sedd na jug jox ñu addi alxuraan. allahu akbar ndeysaan. alxuraan ji neex na. ñëw leen ku yor tànk yu métti ñëwal maa ci gaaw ndeysaan soxna may jooy na may bëgg dee ndeysaan soxna daaraam. ndeysaan ku sa xol sedd ñëwal dama ne ku say tànk di metti joxal ñëw soxna sëñ Abou Kane nee na xolam sedd ñëwee ndeysaan ku say say tànk di metti jugal dox andi addiyee gaaw incha allahu taala ndeysaan sëñ Amar Ndiaye yàlla na yàlla sàmm ko aar ko barke alxuraan karim ndeysaan Mbàkke Bàlla jërëjëf jërëjëf kontaan nañ yàlla yàlla barkeel ku sa xol sedd ñëwal sëñ Fallu foral ma ndeysaan sa xol sedd na yow ndeysaan tabaaraka rahmaan ndeysaan jërëjëf waaw si Moustapha Diop nee na sedd na jërëjëf jërë ngeen jëf yàlla yàlla barkeel jërëjëf ndeysaan soxna maam astu faal faal yàlla faale waaw tooñ de ndeysaan wax dëgg yàlla jërëjëf na sa tànk sedd guj bismillahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdata min lisaani yafqa xawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jullit yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaan di ñaan yàlla subhaanahu wa taala daje bii ñu daje nii yàlla bu mu nekk suñu mujj daje yàlla nañ fi daje téeméeri at di ñaanal Serigne Talla ci kadduy parent d'élèves bi nga xam ni ñoom ñoo dajale seeni kàddu jox ma ko euh, ngir ñu jottali ko mbooloo mépp ñu kenn ku ne dégg li nga xam ni moom mooy cant gi nga xam ni moo jóge ci parent d'élèves bi ñëw ci Serigne Talla Ndiaye mi nga xam ni moo doon jàngal xale yi ak ñi mu àndal ci liggéey bi Serigne Talla parents d'élèves yëpp àndandoo nañ di la sant ñi nga xam ne seeni daa seeni i dongo jaar nañ fi ba mu wàcc wàcc alxuraan ba mokkal ko ba dem feneen ak ñi nga xam ne ñu ngi ci daara yi ñëpp ñu ngi lay sant di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla yàlla yàggal sa taxawaay waaye ñu ngi lay ñu ngi sant tamit ñi nga xam ne ñoo yor gone yi di leen jàngal di leen toppatoo ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ginnaaw loolu nag parents d'élèves léeg dañuy def ay réunion di xam soxla yi nga xam ne mooy soxla yi daara ji ak jafe-jafe daara ji léegi bi ñu waxtaanee ñi nga xam ne moom lañ war a waxtaanal ñi nga xam ne ñoo yor daara ji ñi am ay kàddu yoo xam ni dañoo wax nañ ko jàllale bu ko defee parent de bu nekk man di ko yóbbaale ko man di ko doxal ndax daara ji dafa am ay directive maanaam dafa am nu muy doxee ni muy doxee nag kenn ku ci nekk da cee war a tënku ngir dimbali seen ta seen taara ci liggéey bi ndax kenn ku ne xam na ni yor ab xale sa kër boo xam ni xamagul dara mënagul dara yombul sëñ taala bu ci dajalee ab nombre di leen orienté kon yow mi nga xam ne yaa fi indi sa doom war nga góorgóorlu bu baax ba euh, dimbali sëñ taala ci li nga xam ne moom la bëgg muy sarti daara ji bi ci jiitu mooy bu nga xamee ne dañuy ñëw visit ñun parents d'élèves yi war nañ moytu lu bari lool di jox xale yi xaalis xaalis dafa nekk loo xam ni boo xasee ba tàmm bari na lu la mën a yàqal ndax xale bu tàmmee xaalis rek am na lu mën a def ci ak dundam beneen bi ñuy dimbali bu baax sëriñ taala ci bu korite ñëwee ak màggal gàmm ak xew-xew yu mel noonu ndax kenn ku ne xam na ni yooyu ay feet la yoo xam ni xale yi dañ ciy bànneexu maanaam di ci yëg ni tey jii feetu sàngam la kon nag ñun parents dele bi comme xale yi fa la ñu ne ñun ñëpp war nañu fexe ba jàppale sëñ taala ci loolu ndax kenn ku ne xam ne sëñ taala lii nga xam ne moom la fi dajale facture courant ndox ak yeneen yi ci aju mooy seenub dund kenn ku ne xam ne ne bu ko génnee ci liñ koy jox daanaka du dese dara kon li sëñ Omar Kane mee wax jàngale dafa metti nekkul loo xam ne dafa jafe dafa metti kon war nañoo fexeel ba jàngalekat bi ñi teg ko ci ay conditions yu baax ba mu mën a firi di jàngale di di jàngale jàngale bi mu war beneen bi mooy euh, xale bi saa yoo ñëwee di ko seet si di jooy ak di ko ñeewantal day am lu muy def ci xale bi nañ koy moytul baax boo da koy seet seet tamit xëy na nga ànd ak ñu yam moo gën ngay indi ab nombre bu ko defee léeg-léeg ñu naan visite bi jeex na nga toog fa nga jàpp ni waa daara ji ñoo lay koña wala de fekk na xale yi dañoo war a delluwaat seenum njàng ngir bañ a fàtte li nga xam ne moo nekk seen xel ndax bu ñu gisee seeni waajur yi day am lu muy def su ñoom ñun nii ba nekkee ci daara daa leen tollu ay at duñu gis suñu waajur kon nag ñoom am nañ chance weer wu ne ñu gis seen waajur waaye bu mu yàgg nañ ñëw def ful la def fay da daa dem bàyyi donge bi mu continuer beneen bi tamit dañoo am chance ngir alxuraan yonent bi sallallahu alayhi moo ñu wax ni doomu aadama bu faatoo léppam day dagg ba des ñett benn ba bokk na ci xale wala du saalihu yad'u lahu maanaam nga bàyyi doom joo xam ne da lay ñaanal te loolu daara bokk na ci li muy def ci xale yi ñi xale yi man alxuraan xam lan mooy alxuraan ak nan lañuy ñaanale sa waajur bu génne àdduna loolu ab chance la ci beneen bi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa ni boo yóbboo sa doom ca daara ja yow mi ko yóbbu ak ki koy jàngal ay waajuram ak xale bi yëpp yàlla buddi na seen jëng fa nga amoon na am ca safara kon nag ku indi sa dong euh, sa ndongo ci daara ji ñi koy jàngal jàppal ni yow kat def nga lu rëy rëy te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pare di ko xamle ñun nag war nañoo bàyyi moytu bu baax xale bi daa yàgg ci daara ji comme li ko sëriñ bi waxee léegi xale bi nangam nangam bi ko ñeewantu condition te bu demee ci école français bi yow doo lijjanti dara beneen bi tamit ñi nga xam ne ay bol volonté lañ maanaam seen ndongo sax nekkul ci daara ji nañ fexe ba di jàpp ci daara ji ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ci sóortu baqara masalul ladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah ka masali xabatin an batat sab'a sanabila fi kulli sunbalatin mi'at xabatin wallahu yudaafi liman yasha wallahu waasiun alim alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ma laa yunfiquuna ma man mannan wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun kon nañ jàppale daara te xam ni wa maa tuqaddimu li anfusikum min xablin tajiduhu inda allah yàlla moo ni lépp loo dépensé ngir ëllëg da ko fa fekk te ñun ñu ngi dépensé suñu alal ci ay ñàkk fayda nañ góorlu jàppale daara ji jàppale sëriñ daara yi alxuraan jëm ca kanam amoon na barab bu ñuy bëgg tamit damay tënk rek barab bu daara ji bëgg ngir moomal ko boppam ngir fayam loo as ubbi woon nañ compte bi di ci verser mais li ci dem bareegul kon nag gi nga xam ne dañoo bëgg euh, tuyaaba ëllëg di ko fa fekk nañ def seen loxo ci daara ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ndax xam nga sëñ mortaala bu amoon barab bu yaatu da ngeen gën a gis mbir mbir ndax malgré barab bi ni mu xatee mu amañu résultat yu mel nii damay wax na léeg-léeg nga dem ci daara joo xam ne dañuy génne cent trente personnes ñu ko yéem te fekk loola mën naa am sax yéemewul da ngay xool nombre bu ne ci biir daara ja léegi dem ci daara joo xam ne am 4000 personnes 3000 personnes ñu génne benn 100 personnes kooku boo ko xaymaa génnewul daanaka téeméer yu ne sax fukk boo xoolee te loolu yéemewut xoolal Cheikh moor daaraam ji boo ko xoolee ci xayma bëriwul yenn bëri yi daara yooyu bëri mu génne 19 personnes da war ne daara yi bu àggoon foofu dana gën génn lu gën a bëri loolu kon ñun parents d'élèves yi ni ko suñ ma ko daara ba daan waxee rek suñu bàyyi daara ba daara ju la gën le parent d'élève moo la gën le daara te lu mooy li wér daara yi ci réew mi daara yu rëy yi ngay dégg ci biir réew mi amul benn daara boo xam ne ña ko taxawal nekkuñu ay parent d'élève bu ñu waxee parent d'élève nag mën naa law ba ci doom yi nga xam ne ñoom ña nekkoon ca daara ya ndax léeg-léeg waajur bu indee doomam ci biir daara ji mu jàng alxuraan ba mokkal xale bi buñ delloo kër ga moom mooy nekk nekkaat parent d'élève ci biir daara ji limal daara boo mën di tudd ñu koy tudd ci ay tabax yu rafet ñu koy tudd ci ay programme ñu koy tudd ci ay nangam ak nangam lu man di doon xale yi jàngi ci daara ñoo ñëwaat ci biir daara ja taxawal daara ja di ko taxaw kon su ko defee kon ñun parents yi suñu première euh, takku jug taxaw mooy ñu fexe ba daara ji am barabu boppam daara ji sëñ Mortalla liggéey bu rëy bi mu liggéey nga xam ne magam ju baax jee Cheikh Ahmadou Khadim Ndiaye moo ko ci formé ba yëg ne mën naa yor li muy war a yor mu ñaanal ko bàyyi ko mu dem gunge ko ba fii bàyyiwu ko muy liggéey liggéey bu rafet mu ci teg bëtam bu doon mënu ko du ko ber boobu ba léegi chaque année mu génne fi ay kàng yu baree baree bari te ba léegi daar ji amul baax ñun nga xam ne ay yambar lañ nga xam ne defaguñ benn résultat ñi ngi nam na bi eh, di kii waaye sëñ Mor macha allah moom loo xam la daara ji dama koy wax ne da ngaa war a sàcc sa bopp fexe ba am sa barabu bopp boo waxee mun a daara ji daara ji te xam nga ne ñaari kër la yor di fay fii di fay fële. te loolu dañoo waroon a fexe balaa déwén mu teggeeku